bokk jullit yi ñu ngi leen ziare di leen nuyu di leen baalu xaq di leen ko baal di ñaan yàlla mi ñu di di sant yàlla ci may gi mu may ñu fekkewaat sunu émission al ihsan di tàmbalee ci nuyoo bi nag euh, euh, Makhtar Sey ak Abdoul Aziz Ndoy ak madame Ndoy di leen ziare bu baax di leen ñaanal yàlla yal na yàlla defal jàmm waaye tamit nag di nuyu tamit euh, Modou Ndour di nuyuwaale soxnaam soxna Sooda Ndour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 يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النار فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وأثخكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة هم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنصوا حظاً فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوه سبل السلام يهدي به الله من اتبع اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون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 wa ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma baad mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ku sa tur ak sa sant di leen ziyaare di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal jàmm ci àdduna bi yépp di nuyu kilifa diine yi ak kilifa yi aada yi di ko tàmbalee ci sëriñ muntaqa bashir sëriñ muntaqa bashir mbàkke ak sëriñ Babacar Sy Mansour di ñaan yalla yalla bayi len ci ci kanam ak kanam ak kanam at mbalu ko ëpp di ñaan yalla taxaw bi ñu taxawu diine ji ak l'islam ji yalla len sunu borom yalla ar samal len ko ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa di nuyu ñi ci hôpital yi yalla na fëgg seeni bopp ba ñu seeni kër ci barke Muhammad waaye tamit di nuyu tamit ñi nga xamante ni bii ni ñu ngi ci biir kaso yi yal na leen yàlla génne ci li ñu nekk ba ku ci ne delluwaat sa kër ci jàmm ci barke Muhammad tey nag sunu waxtaan dañ koo jël rek tënk ko ci lan mooy al Islam, Islam. nit ki la nga doon lu ne da ngaa war a xam la mu doon li nga doon ngeen nga ni ab jullit nga nga gëm da ngaa war a xam lislaam lan la bëgg ak lan la dëppoo ci lim bëgg moo tax mu ni al istisla al islaam islaam huwa mooy al istislaamu jébbulu lillaahi ci yàlla bi tawxiid yi ci wéetal ko ba nga gëmee ni yow dangaa bu dugg ci lislaam te jébbulu nga ci yàlla danga war a wéetal sunu borom yàlla wéetal sunu borom yàlla nag julli da cee bokk natt asaka da cee bokk waaye tamit aji màkka da cee bokk moo tax mu ni ba nga nee shahadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah loo ci teg iqaami salaa itaa zaka sawmu ramadan xajjul bayt yooyu la lislaam wax mooy ay ponkam waaye da am ponk bu am solo boo xamante ni bii ni daanaka dañ koo bëgg a dugal ci biir day dugg ci biir sax parce que yooyu yëpp pour nga am ko il faut sa xol bi nekk al ihsaan ihsaan mooy rafetal ci lan ci li ngay jëf bil qawli wal feel li ngay wax dafa war a rafet waaye tamit li ngay jëf dafa war a rafet yooyu ponk la yoo xam ni indi indiwu ko bi muy tëral ay ponkam moom li mu wax mooy shahadatu seede amul benn buur ni illallaahu bu dul yàlla seede ga di jàmm ñàkk gaa seede ga di lor jaamu ga di jàmm ñàkk gaa jaamu ga di lor mooy premier ba ca topp mooy wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nga seede ni sayidina muhammad yalla ko yónni te loolu yàlla wax na wama aataakum rasulu faxuduhu wama nahaakum anhu fantahu benn la ci aaya bu nekk ci suuratul xasri lay wan ni yonent bi li mu doon dañ ko koo def fee mu ni rusulan mubashirina wa munzirin li an laa yakuna linnaasi ala allahi xujjatan baada rusul wa kaana allahu gafuran rahima ñaari aaya ngoog yoo xam ne day tegtal ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yónni aaya yooyu nag day delluwaat ci shahaadatu anna muhammadan rasulullah nga seede ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yónni ci kan la ko yónni ci xeet wépp muy xeet yépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo matal yonent yépp moo tax yàlla bi mu koy yónni ci xeet yépp la ko yónni ba pare dolli ci jox ko alquran ñu ni alquran waxu kan la ñu ni alquran huwa kalaamullah allazi awxaynaa biha ila nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min indillah kon ñaari aaya day ñëw ànd ak shahadatu anna muhammadan rasulullah iqaami salaa soo ko ñëw taxaw iqaami salaa yàlla wax na ko ci biir alxuraan iqaami salaa mooy première troisième ponk ci lislaam boo seede ni yàlla benn buur la seede ni Seydina Muhammad yàllaa ko yónni seede ni julli yàllaa ko santaane demal ci alxuraan da dem ca fekk aaya boo xam ni yàlla mu fa naan yaa ayyuha alladina amanu ida qumtum troisième ponk ci ba nga seede ni yàlla benn buur la amul kenn ku ñuy jaamu ku dul sunu borom yàlla waaye nga seere nit Seydina Muhammad yàllaa ko yónni troisième ponk mooy iqaami salaa te yàlla wax na ko ci biir alquran yaa ayyuha allazina amanu ida qumtum ila salaati faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsaxu bi ruusikum wa arjulakum ila alkaabayn kooku farata la joo xamante ni bii nii yàllaa ko bind ci alquran te loolu yépp yàlla mun ko dëxañ ci biir alquran jox ko kon Seydina Muhammad moo tax ma ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo mën a moo matale yonent yépp parce que ci yàlla ci xeet yépp la ko yónni parce que moo yor alxuraan te alxuraan lépp ci biir maanaam yonent yi ñëw ci ginnaaw yonent bi ci ci ci lu jiitu yonent bi yépp seeni téereeg la leen yàlla yónni yépp yàlla dëxañ ñu ci biir alxuraan moo tax mu jox ko Seydina Muhammad yónni ko ci xeet yépp moo tax mu ni shahadat an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah iqaami salaa itaa zaka mooy ñeenteel ba joxe azaka innama sadaqatu lil fuqara والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله دينغ تيمودي آية بلموة فريضة من الله فرت لبو بوك تي فرت يالاي كوم جولي نيم نيك يو أزاك نون نيك فرت يو مودخ موني تي آية با فريضة فرت من الله بو بايوكو والله عليم حكيم يالا خم مو خيرله يالا ميوخ لولو santana loolu mo xam lépp mo xere le lépp motax muni iqamis ni iqaami zakat sawm ramadan hajjul bayt aj màkka liman istataa de nga lim wax de hajjul bayti aj màkka liman istataa ñel kep ku ko man bo boo de dem màkka l'islam wàcc na la parce que alquran l'islam alquran yalla ci wax ni la ikraha fi diini sonaluñ kenn ci diine am na ci loo xam ni boo demee ba mënatoo ko bàyyi ba mu des julli koor boo ko mënatul lislaam wàcc na la aji màkk mënoo amoo doole ja wala amoo eh, wér-gi-yaram ga wàcc na la ba mu des nag julli julli nag moom du wàcc kenn ba keroog ngay dugg suuf kon ñu jàngee ci loolu xam ci loolu moo tax mu ni alislaamu islaamu islaamu huwa mooy al istislaamu jébbalu lillaahi ci yàlla bi tawxiid ci wéetal ko li ñu koy wéetal moom wax naa leen ko mooy lan لنوخ في يب كي يالا لبوك والانقياد له بالطاعة اكتبكو والبراءة اكميت من الشرك كي بوكا لسنو برم يالا وأهله أغلو أنك شرك بوكا يالا نيب ننكو ورم ميتو بس كي يالا يالا لم موم موم ki tax nga koy dendal ak yalla lamu am yalla ko may kon nak amna place bo xamni ni kep ko mom ken momuko ko li rek moy corona bi ken manu ko fay gele ku dul yàlla te bo ngon ngoon ni ngi lo xamanteni bi ni mastaw len def len ni def len ni bu fekkon ken man nako fajj faj ku dul suñu borom yalla jóge na fi parce que ñepp bëgg mu jóge fi motax mu ni wal baraatu min shirk ak bay bokale sunu borom yalla wa ahluhu ak lu ak shirk rek lo xamanteni bi ni yang yang koy wax te mu ak bokale yalla rek day bok ci wal baraatu min ash-shirki wa ahluhu ak ñoñam muni wa diinul Islam, diinay Islam salasa maratib ñetti martaba la bi ci ñek al Islam, wal iman wal ihsan kon lama ma leen doon wax na iman indiwul ihsan, waye indi Islam. islaam waaw parce que dine da yor ay ponkam waaye ñaar yi dala ko indilaatal yoo xamante ni bii ni pour nga gëm yële il faut nga am yii il faut nga am imaan soo ko seede ni yàlla mooy yàlla kese moo fi nekk soo de ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yónni seede julli seede lépp il faut nga gëm loo gëmul mënoo ca mënoo caa sori loo gëmul rek mënoo caa sori te gëm gëm gëm yàlla mooy première moo tax mu ni wa hiya al islaam wal imaan wal ihsaan ak lan rafetal رفتال يلا وانا في القران وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقيموا الصلاه غيس نين يالا لي نك وخ في القران وقولوا دالين وخ يين نيب للناس نيل نين حسنا نك تيرانغا لوم تي تك واقيموا الصلاه بو جولي تي دو وخ في سمروم جولي نك تيرانغا تي يينو وكو جام ياغي ملي كمثل الحمار يحمل اسفارا بامو سوف اي تيري تي بامو سوف اي تيري لوم خام تي لوم خامو تي دارا boy julit di wor di nat azakata te foofu sa morom julit wala la ginnaaw nga nek ci deram nek ci mom ci lu bon goowaaw li ngay julli zero la yalla wal iman wal ihsan bo geume ba pare yalla da ngay rafetal yalla ni waqulu de len wax lin nasi ci nit ñi husnañ lu rafet wa aqimus salata te ngeen taxawal julli bo xese ba nekk ab julit li nga wara def moy di wax ci nit ñi lu baax yene ñepp jamm parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsi jullit bi ndere mu gëm yàlla lu dul ni li mu bëggal boppam daf koo bëggal moroomu jullitam mooy tax nga gëm yàlla kon bu ñu xoolee loolu àdduna bi li muy doxee yépp boo génnee téeméer bu ne juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent yi zéro li xadis bi wax def ñu ko da ngay xool kuy dem nga ni kii li mu am baaxul wala kii da koo sàcc ñaaw njort yu bon yoy nga xamanteni bi di ni dafa jaarul sax ci diggante julit ak moroomu julitam nit ki lu yalla def rafetal ko tay ñaan yalla mu yokku waye nit ki ni la ko yalla doxale ay mbiram mu mel wala yalla may ko li nga bëgg soxor fo tok naan ki ñoo bokkon di defal yéen bokkon bokkoon def waaye seeni wërsëg bokul yalla bin na may wul ala nasi mukhtalifun la yalla wax ci suratul mutaffifin man ma bin doomu adamay yi yépp waaye doomu adamay yi bokku ñu yam yalla ko wax ma bin nit waaye doomu aadama yi bokkuñu yépp moo tax mu ni wa hiya al islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha ak benn martaba boo xam ni mel na ni martaba yii arkanun ay ponk lañ mu ne xaajatul bashariyat yu nag xaajay li yàlla bind ci ilal islam jëme ci islam mu ni la saadatu lil bashariyati lil bashariyati la saadatu dee texe lil bashriyati lil bashriyati ñeel ki yàlla bind muy kan doomu aadama bi muy nit ki ak jinne ji du texe mukk lu dul fi duniyaa ci àdduna wal alaaxi wal aaxiratu ak alaaxira illaa bil islaam lu dul mu nekk ci islaam doo texe mukk yow mi yàlla bind muy nit ak jinne mu parce que yàlla ci alxuraan ñaar rek ya wax ñaar la wax ci alquran wa maa xalaqatul jinna wal insa illa li yaabudun nit ak jinne duñ texe mukk ci alaxira lu dul li dañoo nekk ci lislaam mu ni wa xaajatuhum ak seeni xaajo ilayhi jëm ci ñoom azamu min xaajati li taami amoo benn aajo bu gën a mag lekk wa sharaabi ak naan wal hawaayi ak fo fo nag buñ koy wax du question ni fooy xew ci jamono jii nga xamante ni bii ni lu la neex ngay def di def la neex yo fo yooyu waxuñu ko wa huwa mom azamu li gëna mag ni'amillahi ci xewali yàlla yi ala qalqihi ci lim sàkk wa kullu insanin ila shar'i bépp nit ko xamanteni bi ni sa xol bii sikk sàkkiwul ci sharia fo huwa mom bayna harakatayni ñaari yëngu-yëngu yi di di am ci aduna muy harakatun yajlibu biha ma yanfa'uhu yëngu-yëngu bo xamni dalay jariñ ak yeng yeng bo xamanteni bi ni dalay dalay lor mo am ci aduna nga nek ci souva lo xamanteni bi ni dalay jariñ wala souva lo xamanteni bi ni dalay lor ñaari yeng yeng yeng yi moo nekk ci aduna motax yalla wax nako ci alquran faman ya'mal misqala zarratin xayran yara moy lan xarakatayni ya harakatun yajlibu biha ma yanfauhu moy faman ya'mal misqala yera zarratin xayran yara buñ ko tekke ci alquran waye nak wa harakatun yadfau biha ma moy tamit benen xaraka bi ngay yëngu mu lay lor moy faman ya'mal yaamal zaratin sharran yara ben baaxu ci motax tax mu ni wal islam islam huwa an nuru alladhi moy nur leer gi nga xamanteni bi ni alladhi moy leer gi nga xamanteni bi ni bayna ma yanfa'uhu manam dafa nek ci diggante njariñ wa ma yadurruhu ak luy lore wa yuxti dana la jox atba'uhu top ko al ajru ak fay al mudha'if buñu doublé duble yalla yàlla dañoo noppal ñun ñep ben ngay def yalla fay la ñaar nga def ñaar yalla fay la ñet kon lool moy wa ajru al mudha'if fay go xam dañ la koy dubleel loolu neexna kon mbokk julit yi nañ leen jëlle siwaat suñu xeli te jamu yàlla te ta sëriñ te te topp muhammad sallallahu Alaihi Wasallam te sop serigne su parce que sëriñ su baax ni ñoo bàyyi tool bi góob ko gar ko def ko lépp xam-xam yi ci nekkoon yépp ñoo ko liggéey ba mu baax ñun li ñu waroon mooy ñëw rek topp seen ginnaaw def seen i ndigal bàyyi seen tere parce que lu ñu digle yàllaa ko digle ak yonent bi lu ñu tere yàllaa ko tere ak yorant bi kon mbokk jullit yi ñun suñu tool rafet na trop bu ñu yàqu tool bi nañ leen yéenante jàmm bëggante te yàlla tax soppante te yàlla tax أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالديكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته